inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wala ma wax kullu nafsin zaiqatul mawt wala kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram maa ngi fay nuyoo bu baax a baax tabarakallahu mooy kenn ku nekk séq nga ak moom baax séq nga ak moom yar séq nga ak moom dal surtout mu yor programme mu Sen TV nekk directrice su programme kenn ku ne man ni ko yëgee maa ngi woon Njaasaan dama rek di lem sama grand boubou parce que dama naan comme damay dawal mënu ma sol grand boubou di dawal ci saa si rek ñu tàggee ma ko mais fi ma taxaw ñi ma wër rek xam nañu ne am na lu ma dal dama ne allahu akbar ñu ni ma lan la ndeysaan benn jigéen laayeen la sax fi la dëkk ma ne ko ah dañ ma tàggee moomi ñoom ñëpp dañu stressé noonu laa duggee sama oto départ jàdduma fenn jubal ci seen TV parce que ki ki dem ku rëy la ci ñun ku baax la ci ñun ku dal la ci ñun ku tabe la ci ñun ku ñu mën a ñiir la ku ñu jàppale la ci sunu mission ki dem moo tax ñu fuy xam nga ñaata laa def seen TV cinq ans xam nga kañ laa xam muumi daaw laa ko gis bët ak bët wala dal naa ko gis mais kañ laa ko gis xàmmee ko daaw bi ñuy defar ay ndogu laa nuyoo rek romb ko tourné ni Fatou Abdou Fatou Abdou Ndiaye xar du kii kan la mu ne ma yow xameewu sa patron mu mi moo toog nii ma ni ma ni ma koo xam ni yaay patronu des médias sa borom kër a ko moom am na jigéen ñoo xam ne bu doon ñoom subaak ngoon gu dégg bëccëg ñu ngi wut ku ñu gëdd ñu ngi wut ku ñu wàññi ñu ngi wut ku ñu nàngam mais moom mi buy waxtaan ak yow sax ci dara mën na la ko imposer parce que dañ lay fay weer mais li muy njëkk a def balaa mu lay woo téléphone moom mi daf lay message ne la est mën naa la woo bu la wul nga ne ko ok mu woo buy wax ak yow day mel ni daf lay neexal gëmewu la pour nga defal ko loolu kooku nag boo ko ñàkkee foo jaar sa loxo aju jëm ci sa gémmiñ nga ni e ñëpp e boobu la ñu yeewwaale ku def témoignage jooy xam ni ñàkk nañu koo xam ni wax naa sànq ni suulagun ko de waaye ruu gu baax dem na ruu bu dal dem na ma du yàgg léegi mu war a fekk way juram waaye day fekk baay bu ko bëgg waaye moom itam baay bu ko bëgg dooma mi ngi koy fekk si waaye soxna soo xam ni xama du amati de waaye wallahi mel ni moom mu mu balaa jigéen di mel ni moom trois coins yi ko séq benn bu ci jigéen am dina bew doomu coon sekk laa sa baay ñëpp xam nañ ko kon war ngaa fuuy magu waali sekk laa mënoon nga am nooy wane woo mais soxna yu Bougane Gueye Dany la muy trois yoo xamante ni kenn ku nekk rek waroon na jar nga tiitoroo mais est-ce que mës ngeen dajeeg moom ci site internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen a yor est-ce que mës ngeen ko dégg ñu partagé ko ci détail wala mu wax teg-teg comme yaayam kàddoom néew na jëfam bari na mu mi daal lenn rek da ngay ñëw buntu seen TV fekk saak bu tege ñu defal la ci ay jees neer ay couleur ngay wàcc visile bi ne la oustaz Euh, am am mbuus bi nga ne ko pour lan la wala saag bi mun la muumi moo la ko jox jël enveloppe bu xaalis roof ci biir pour nga ñaw ko yenn saay ngay wàcc day xam sa heure cak-cak egsi u oustaz na nga def nga ne ko maa ngi fi mu jël mbuus jox la wala saak ni la muumi moo la ko jox jël enveloppe teg ci maa ngi wax léegi ni leen même message am bi mujj daf ma ciy ñaanal même pas trois semaines nga xam ni kon ku baax moo dem ku yaru moo dem waaye ki ëpp problème ci dem gi mooy bugaan moomu ñaareel la bu mënee gérer seen TV kon nga xamante ni ku maîtriser borom këram la wax naa ko sànq bes dañuy waxtaan man ak moom mun ma oustaz man de bugaan leen rek moo mën a xari ci moom politique ma ne ko mais sansam la te war na politique mu ni ma bañu ma moom politique waaye dama bañ koo saaga te politique faw ñu saaga la faw ñu xas la te bëgguma ko ko saaga bëgguma ko ko xas loolu rek moo may naqari ci politique mu dugg ci waaye lu dul loolu neex na ci moom yal yàlla xare ko aljana kooku moo dem li ma marqué ci moom dafa bari waaye bokk na ci li ma gën a marqué ci moom bés ñu am plateau xam ngeen plateau grand plateau am na ci euh, weeru euh, at mu jot am naa ci koo xamante ni day dugg su bàyyi la ci ñun kilifala ci ñun xam ngeen ko bu baax a baax damay moy di tudd tur waaye gis nga man ak moom bu ñu waree daje grand plateau day mel ni cooki fin ci waxin bi mu ñëwee ren ni bu ma bokkee ci plateau bi du bokk loolu wax ni bu bu ko leeree ni damay toog ci plateau bi moom du toog ki ma leen di wax kilifa la <coughs> muumi ma oustaz loo xalaat ma ne ko muumi man dañ leen xamal naa la ko mooy bu ma dul toog plateau bi moom jàppal ni grand plateau yi des du ma toog ma ne ko bi ci des mooy lii grand plateau la invité la day mën toog ñu gérer ko mënu ko keneen ñu invité keneen mu ni ma ñëw na ba pare te moom moo nekk ci pub bi ma ne ko ah damay toog ma jug ci siège yooyu ñu defal ma siège spécial ci côté bi man ma toog dend ak waykat yi mu ne du ma toog ci siège bi ki ñu invité parce que waruma tiim ñu koy wayal damay toog ci suuf man leen muy neex muy naqari ci siège bii laay toog tiim ñu koy wayal ñu xëccante ma ni moom du ma dellu ginnaaw pour wax la mbaaxam dama ñibbi sama kër rek trois heures 2 heures du matin trois heures du matin mu message ma ni ma est ce que mën naa la woo ma ne ko d' accord mu woo ma ni ma oustaz yow kilifa nga seen doo employé bi ci defar bi ci des lu bari yow yaa war a defar am na situation yoo xam ne war nga ko mën a gérer ci mbaax wax wax wax wax ba ma ne ko maa ngi jéggalu bokk na ci li ma gën a marqué ci moom ma ruus ko ci ba grand plateau yenn saa yi damay ñëw toog ñi fekkee grand plateau xam nañ lu tax ñii ñëw ëpp saisi ma jug man sans place ni diw kaay nga toog bàyyi ma may la nga doxal tey parce que nit ñi xam nañ ma ma toog yokku ma ma ñàkk toog yokku ma man noonu laay génnee dem ñibbi yenn saa yi mënu ma waroo waroo waroo waroo jóg parce que diine ji mooy tax ma ne ko mais am na koo xam ne bu ma jugul may ko keneen du xalaat jóg may ko bàyyil ma may ko ngir sagal ko parce que acte ci la la nit di soppe loolu marqué na ma lool lool ci moom ak ak ak yàggul dara mu yoon ne waat ma ay tisi comme ni ma koy waxee di ma tooñ naan ma oustaz xamoo tisi bi def fausse nay gër la ma ne ko mumi nag tisi bu nekk sol naa ko bii moom solo gu ma ko mënu ma dama la ko defal addiyee yonent bi sallallahu alayhi wa allahu akbar diggante juddu yonent bi ak ngéntali comme ni mu demee xam nga démb la ngéntali moo tombee nag anniversaire bu gaan daaw mu woo ma waa grand foo nekk ma ne ko dama nekk ci ay service parce que dama doon ragal mu mu enregistré ma dara fekk sonn naa mu ne ma mais Bougane day def anniversaire ma bëggoon nga ñëw ci ma ko yii moom yi instant mu ne ma noo jàpp ci affaire la rek man ne ko noo jàpp ci mu ma lend rek laa bëgg nga ñëw tàggalal ma ko yonent bi loolu kase kase kase laa bëgg nga defal ma ko xoolal timis la ma waat ni ma mais yow foo nekk man ko mais damay xaar nga woo ma mun waay départal waaye balaa gato bi di ñëw xoolal ma départ ñëw fekk fa ay kilifa mais mu traité ko traité bu rafet rafet mel ni daf ko doon wan ni ko dernier fête bu ñu war a feetoo ñun ñaar ñu ngi nii def ko comme ni naar yi def seen xayma yi ma pare mu ni ma taggal yonent bi ma tagg yonent bi ba mu jooy fa jooy yu metti may ma xaalis yaayam noonu goroom noonu soxna yi waale ñëpp toog ñëpp def teraanga bés boobu laa yaakaar ne mooy feet bu mujjee feetal borom këram xoolal heure boobu net net net net bu ñu nee suba la ngéntali wala bésu ngéntali ci la wuyu ji boromam. waaw man xam naa ne dafa feebar yàggul du ma tudd tur dernier vocalam dernier vocalam ci groupe bi bi mu vocalé am na koo xam dafa jooy bi muy wax man dafa ne ma oustaz te man automatiquement xam naa ni force jeex na parce ni vocal bi demee. ni baatam diree ko sànq rek maa ngi déglu vocal boobu mooy wàccaayu gàmm bi ñuy def groupe bi mu dugg ci di joxe benn xalaatam ni ñu defee nangam dernier jour bi dernier jour gàmm mais vocal boobu daf ci am dafa jooy ni ma oh, mu mi feebar na nag mais gis nga li muy feebar feebar yëpp mu ngi doxal programme bi parce que feebar bi mën naa wax ni doxalee na ko ay at mais du feeñ ci xam du feeñ ci jëfam mais am na feebar yoo xamante ne duñ dellu ginnaaw bu nit ki di wax nga miin kàddoom 100 pour cent rek li nga xam ne feebar bi gàññi na ko mais dund na personnalité mais itam ji na boromam ci personnalité.